waaw tey dañu woote woon ci commune u Niakhène euh, pour la finale des nawetaan finale bi nag mu war a opposé équipe bu Niakhène ak équipe bu Ndéré mbay comme ni nga ko waxee léegi euh, vous avez vu l'état du terrain un terrain nu impraticable mais loolu commencé woon na ci jël des mesures au niveau de la commune parce que en tant que euh, maire j'avais pris l'engagement donc jëloon na engagement mais au moins nañ ko clôturer wutal ko des barrières mais entre temps ñu am si offre ministre ab Diouf Sarr boobu moo nekkoon ministre des collectivités euh, locales mu ñëwoon fii Niakhène visite def visite promettre ñoon ñu stade municipal multifonctionnel ak euh, une maternité à Kaoulou euh, il avait même procédé à la pose de la première pierre c'était en février 2000 mu ngi nekkoon février 2017 entre temps nag mu am blocage ndax dañu changé ministère ministre bu bees bu fa ñëw dafay jël bu jëlee fonction dafay visiter les services qui dépendent de son département euh, bi muy xool service yooyu nag ñun contact parce que travaux yi AGETIP lañ ko convié confié woon dernière information bu ñu laajee lu war a retard bi dañu waxoon ne ministre bi kat dañu doon xaar mu visiter service AGETIP comme AGETIP ci ministère boobu la dépendre bu ko visiter après ñu xool arbitrage budget yi engagement yi ñu defoon ndax mun nañ ko continuer wala mënuñu ko continuer loolu moo ko yàggaloon benn jamono mais mu defee les visites jot naa confirmation ci ministère ak secrétaire général mu ne waa ministre bi joxe na ci pour ñu continuer travaux yi da lancé nañ appel d'offre bi tànn nañ entreprise bi ko war a liggéey mais nag ku nekk xam na marché état nu muy demee wala marché euh, euh, travaux euh, marché public nu muy demee donc le temps que ñuy def appel d'offre def attribution provisoire Euh, xaar am na dara yu ñu war a respecté attribution définitive enregistrement du ba ñu joxe euh, euh, ordre de service dana jël tuuti temps mais ñu ngi continuer di yaakaar ne ba la ñuy dellusiwaat année prochaine di defal final nawetaan wala final coupe du maire dañu yaakaar ne stade boobu dinañ ko mën a pratiquer. Il y avait des difficultés, mais avec la, la convention euh, qui avait été signée avec euh, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'ICAT rural, la commune, je rappelle que la commune de Nianchen a octroyé euh, hectares à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui veut délocaliser tout ce qui est formation en agroforesterie. Euh, ils ont commencé à exploiter cette superficie depuis l'année dernière. euh, lors des vacances citoyennes de cette année, les réunions qu'on a tenues avec euh, le recteur M. Ibrahim Toubou et les responsables de l'université, il était convenu de prendre une certaine superficie à l'intérieur de, cette, euh, de cet espace-là, de la superficie qui a été octroyée à l'UCAT, de le consacrer aux jeunes et aux femmes. Ils ont démarré cette année. Ils ont choisi quatre ASC, et, euh, non, quatre groupements, de femmes, les GPF, les groupements de promotion féminine, et deux ASC qu'ils ont intégré à l'intérieur de l'espace. C'est l'université qui fournit tout ce qui est intrant, tout ce qui est matériel. Maintenant, ils ne demandent que la force pour travailler. Euh, ce sont des groupements de, de, 25 à 30 femmes. Pour les associations également, c'est des associations de 25 à 30. Si ça dépasse 30 femmes, ils vont créer un autre sous-groupe. Donc si on prend 4 groupements de 30 femmes, ça fait 120 femmes. Deux groupements de jeunes, de 25 à 30 jeunes, ça fera 60 jeunes. Euh, 120 et 60, ça doit faire 180. C'est des emplois au niveau de l'UCAT rural. Mhm. ndaw ñi de ni ma koy faral di waxee fii au niveau de la commune de Niakhène ñun amuñu lu dul sàmm ak bay suñu borom dogal nag ñu signé benn convention ak université Cheikh Anta Diop di lu ñuy wax UCAT rural ñoom li doonoon seen mébét lépp loo xam ne mbay la. ak agro agroforesterie lu jëm ci wàllu garab garab meññeenteef dañ ko bëgg a délocaliser indi ko ci commune Niakhène commune Niakhène octroyé loolu 30 ectare 50 hectares la woon au départ mais ñu désaffecté ci 20 am ñu ñu ko affecté woon mais ñoom ñu continuer avec les 30 hectares nañ ko exploiter ça doit faire deux ans mën na mën na ñaari at ak léegi nag bi ñuy négocier waat bi ñuy def situation bilan bi ñu ne leen dañu bëgg kat ñun ndaw ñi ñu fi am ay baykat lañ jigéen ñi ay baykat lañ dañu bëgg ñu intégrer leen ci superficie ucatriale bi jox leen seen parcelle bopp su ko defee danañ ci gagné en expérience par rapport ak euh, connaissance théorique yi nga xam ne dañ ko jëlee université indi ko fi waaye université également danañ ci gagné en en expérience pratique par rapport ak connaissance locale bi ñuy bayee ñoom cette année ñu tànnoon ñeenti groupement ci femmes yi ne dañ leen di intégré ci surface su UCAD rural bi tànn ñaari ASC groupement yi nag bu ci nekk entre vingt cinq femmes lay doon vingt cinq et trente femmes dee ASC yi également entre vingt cinq et trente koy limiter noonu pour mu gañ a mu bañ ëpp su demee nag ba ëpp groupement bi ëpp loolu ñu créer un autre sous-groupe superficie leen di affecté à l'intérieur de l'UCAD rural université et leurs partenaires ñooy indi tout ce qui intrant jiw yi ñoom ñoo koy indi euh, fertilisants yi ñoom ñoo koy indi bu dee engrais la wala lu mën di urée ñoom ñoo koy indi Euh, le petit matériel également ñoom ñoo leen koy nii li ñu leen demande rek ñoom ñu indi seen force pour liggéey lépp loo xam ne jëlee nañ ko foofu dañ leen koy delloowaat ci ñoom loolu la ñuy wax ne euh, l'université le service rendu à la communauté parce que ñetti ñetti sas yi la ñu doon am euh, enseignement recherche et service à la communauté service à la communauté nag ñu ngi koy démarrer à Niakhène lépp lu génn ci tool yooyu dañ koy delloowaat ci jigéen ñi ñu delloowaat ci seen groupement à l'intérieur de leur village ñu leen ñu on a créé chaque village on a mis ce qu'on appelle des bois villageois c'est des superficies d'un hectare affecté au groupement de femmes li ñu leen di jàngal wala expérience bi ñu jëlee ci UCAD rural bi loolu lañuy ñuy delloowaat ak koom bi ñu jëlee woon ci un hectare bi ñu fa exploité ressources yi ñu fa jëlee Euh, ñu jokkoo ak université ñu wutal ay partenaires ñu delluwaat seen dëkk yi mun ko vulgariser noonu daal la ñu bëgg daal dina jàppale euh, jeunesse bi dina jàppale femme yi ci auto emploi. présenté ministre Mame Thierno Dieng ministre de l' environnement et du développement durable ci final bi nga xam ni moom leen organiser fii ci ñaaxeen ci diggante ñaaxeen ASC ñaaxeen et ASC Ndéere May ñu am mbégte nag lool ndax ministre wax dëgg yàlla lim ni doomi kajoor la te fas naa yéene dimbali waa kajoor wane na ko ndax jox na leen dix fukki peeri mayo fukki bal ñaari coupe ak des filets ak to continuer nag di jàpp di leen fas yéene jàppale ci lépp loo xam ni ñoo ngi si waaw ah, donc euh, dama doon ne rek euh, tey ñu doon assisté finalu zone bu Niakhène final boo xam ñu ngi ko parrainé monsieur le maire de la commune de mu opposé ASC bu Niakhène ak ASC bu Ndéré Mbaye moom premier mi-temps lañ nekk léegi lañ démarré waat xam naa ne vraiment final la boo xam ne ñu ngi koy joué si sérénité ñu ngi koy joué quand même jàmm c'est une fête de jeunesse vraiment boo <coughs> xam ne mobilisé na euh, acteurs yi nga xam ne ñu ngi fii ci Ñaaxeen yëpp. Euh, premier bi bi la ñu assisté nii moo tax wax ji bëri euh, ñu ñu remercier vraiment ñëpp ñi nga xam ne ci final bi leen di remercier yéen aussi waa effectuer le déplacement ñoo ba pour couvrir cérémonie bi ñu ngi leen di remercier bu baax merci. donc aujourd'hui le dimanche 14 euh, octobre 2018 euh, c'est joué dans la commune de Niakhène. la finale des Nawetan opposant l'équipe euh, euh, de Niaten et l'AS euh, Ndere. Donc vous voyez, la population a répondu massivement. Vous avez le terrain, comme vous l'avez euh, dit tout à l'heure, le terrain impraticable. Mais l'année dernière, on avait pris l'engagement avec les jeunes, c'était l'année d'avant, il y a cela à peu près deux ans, on avait pris l'engagement de clôturer au moins euh, le terrain. Mais entre-temps, euh, on a eu l'offre de M. Ablaï Star, qui était ministre de, euh, des collectivités, des collectivités locales. Entre-temps, qui nous avait promis la construction de stade municipal multifonctionnel à Niakhène. Il avait même procédé à la pose de la première pierre. C'était fin 2016, début 2017. C'était en début février euh, et les travaux étaient confiés à l'AGETIP. L'appel d'offres a été lancé, l'entreprise choisie. Mais entre-temps, il y avait quelques difficultés qui a fait que le, les travaux n'ont pas encore démarré. Mais euh, Niaken dispose d'un stade multifonctionnel, l'appel d'offres lancé, euh, les travaux confiés à l'entreprise, donc euh, il ne reste qu'à démarrer les travaux. C'est pourquoi on continue à jouer sur ce terrain-là qui est un peu impraticable. Mais espérons que d'ici l'année prochaine, le temps de faire la, finale des Néotan ou bien la Coupe du Maire, on Oui, les dernières informations que nous avons reçues de l'AGTIP, c'était un problème d'arbitrage. Parce qu'entre-temps, le ministère a changé de... de, de euh, on a affecté de ministère. Le ministère devait euh, visiter ses services, prendre contact Bon, on avait dit qu'il devait y avoir des arbitrages parce qu'il y avait un dépassement de budget. Mais euh, on nous a rassuré la dernière fois avec l'architecte et le maître d'ouvrage, les travaux vont démarrer incessamment. De l'environnement et du développement durable. C'est moi un honneur et un, grand plaisir d'assister à cette belle finale, de représenter mon ministre Mam Tchernodien, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Euh, si vous voyez cette finale-là, euh, euh, le ministre n'a ménagé aucun effort pour accompagner les ASC. Euh, il a octroyé 10 jeux de mayo 10 ballons, 2 coupes, des filets. Et, continue à, et continuer à les accompagner dans leurs activités. C'est un ministre vraiment qui se soucie de ses origines et qui œuvre maintenant pour l'avancée euh, du Cayor. Euh, Ibrahim Sarr, euh, sous-préfet de l'arrondissement de Niakhène. Aujourd'hui, euh, nous, assistons à la finale de la zone de Niakhène, finale qui oppose l'AFC de Niakhène à l'AFC Ndéré. Actuellement, nous sommes à la mi et le score est vierge pour le moment. Car nous avons assisté à une très belle euh, finale euh, et que vraiment c'est une fête de la jeunesse. Euh, ça se déroule quand même dans la paix et dans la sérénité, dans la joie également. Et vraiment, nous nous en réjouissons en tant qu'autorité euh, représentant de l'État dans la zone.